euh, mouvement Frappe France dégage ak mouvement Yanamar, initié nañu euh, démarrage une série de manifestations pour suñu justice une justice indépendance ndax nous, kenn au Sénégal ni yoon su Macky Sall dafa jeng waaye tey jii nii la de jeng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 pour que ñu jëm à partir du vendredi 10 décembre bi ñu jëm ci Dakar ak petit ci Sénégal ak ci diaspora bi ay manifestation pacifique yoo xamante ni yoon a qui jeng lañ koy pour que fépp sénégalais yi ñu taxaw pour que Macky Sall li ko qui ci 2024 li ñu mëna sauver ci suñu justice ñu sauver ko li ñu mëna sauver ci suñu état de droit ñu sauver ko li ñu mëna sauver ci suñu démocratie ñu sauver ko et qu'on lui donne même pas le choix pour que mu téggu ci yone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 ci xeex bi muy au côté du peuple sénégalais ci ay préoccupations ñu ko fa Thierno Amadou Diallo bi nga anam fa ak ci au delà de dossier bi nga xamante ni mu nekk fa ak Simon ak plainte kilifa bi aussi ci ñu ko en catimini téye kilifa à mu doon li nga xamante nit ñi nañu ni euh, injustice la. Il askan wi eu ci conférence de presse mu déjà toute la cabale qu'il y a eu avant lolu li qui kilifa ak au niveau de Rebus, waye dossier bi niñ ko géré Bob ba ba ñu ñaar ñi kilifa ñu ko fa ndax ay ndax engagement am ndax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 engagement ci euh, seen engagement yeewi askan wi ci journée de manifestation le 10 décembre yi ci Dakar ak fépp ci réseau région yi dispositif yi ñu mettre en place yi nga xamante may wax ak ni 12 régions déposées, nañu ay plus ay départements on est à près de 20 localités te dina continuer ci Sénégal yi nga xamante dina am manifestations donc si euh, vous fi jógee tey suba war nañu daje ak dynamique bi nga xamanteni société civile bi nga xamanteni ñom euh, plateforme plateforme des acteurs non étatiques aussi aussi tout de suite am engagement bi en direction du 10 dinañu am ak ñom waxtaan buñ joggé ci dinañu jëbal kaddu suba inshallah euh, plateforme des acteurs non étatiques nonu lañ koy dinañu ak ñeneen ak ñeneen coalition aussi pour que mu doon dynamique aux sénégalais yépp mu bañ a doon bu une wala bañ a bu frappe ou yeewi askan wi mais que tous les sénégalais se retrouvent autour de ce combat bi nga xamante combat citoyen là pour que suñu justice ñu mun ko joyanti jërë ngeen